الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسه الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لابد أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل رسله رسل الله جميعا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به رسله فجعل سيرته قدوة لكل مؤمن في جميع سؤون الحياة صغيرها وكبيرها وختم بدينه الشرائع فجعل رسالته أكمل الرسالات وأوفاها بحاجة الناس في مختلف بيئاتهم وعصورهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحداة البررة الذين علم الله فيهم سلامة الفطرة والصدق الأقيدة وعظيم التضحية إخوة الإيمان ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi fokk ñu xam miisatu siiratu nabawi sallallahu alayhi wa sallam foog ñun jullit ñi ñu xam ñu ràññee histoire yonent yàlla Muhammad foog ñu jàngaat ko lu tax buur bu toll na yàlla subhaanahu wa taala mënta tànn yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yónni ko. ci jamono bi mu ko yónnee mu ñëw jàngale diina ji leeral ko ba mu leer moom yonent mu bàyyi koo fi ñu déggaat ci jamono ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dékki waat na ba ñëwaat ci jamono di waaraate waat lu tax jullit ñi gëm loolu mooy ñàkk a jàng histoire yonent bi ñàkk a jàng alquranul karim yonent yàlla muhammad papaam mi ngi tudd Abdallah yaayam a ngi tudd Amina Makka la juddoo mi ngi faatoo ca Madinatul Munawwar ci néegu benn soxnaam bu tudd Aisha fa lañ ko denc jamono bi ko yàlla di yónni subhaanahu wa taala mi ngi ko yónni ci palaas ci barab bu tudd Makkatal Mukarram moom yonent bi mu def fa fukki at ak ñett di waaraate di jàngale di woote keroog bi ko yàlla di yónni mi ngi ko fekk ci benn xunt bu mu daan dem di fa làqatu li waral loolu mooy jamono bu lëndëmoon bu yàqu comme bëggul def la nit ña doon def ki naan sàngaraak njaaloog tambaambaalu li xew tey ci jamono lu nuroog loolu mu koy daw muy dem di wéet ci benn xeer bu tudd xaaru xira ca jamono bi muy am ñeen fukki at sunu borom subhanahu wa taala daal di koy yónnee malaayika bu tudd jibril alayhi salaatu wassalaam jibril fekk ko ci xuntu moomu wàcce ci moom alquran saar bu njëkk ay aayaat ci suratul alaq yàlla ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq loolu lañ ko tànnee def ko yonent ñu ngi ko yónnee ci yaa ayyuhal mudassir bi alquran boobu wàccee ci moom mu dem ñibbi këram dafa ne mbir mi jeex na mu ñëw jël lalam tëdd sangu malaaka bi ñëwaat ne ko ku ñu jox wax ju mel nii nelaw jeex na ci yow jógal yaa ayyuhal mudassir qum yaa ayyuhal muzammil qum yonent boobu nga xam ne li gën a wér lépp ci histoire am sunu jàngee histoire danañ gis ne siratahu asahu siratun liltaarix nabil mursal aw azimin muslih wasalat ilayna siratahu sal allahu alayhi wa sallam an asahi turuq alilmiya mu ne yonent yàlla muhammad histoire am buñ ko jàngee daneen fekk niñ ko jotee lépp wér moom moo gën a wér histoire yonent yi yàlla yónni yëpp yonent bu nekk boo jàngee histoire am dina am foo gàkk dootoo mën a jàll ba mu des Muhammad balaa muy juddu ay maamam xam nañ ñëpp dañ la koy toppal càll la ba ci Ibrahima alayhi salaam soo jàngee histoire wàllu baayam wàllu yaayam lépp a wér amul lu lëndëm amul lu làqu ci moom. ba ni mu juddoo ci màkk nekk ndaw nekk jeune ñu mun laa wax lépp ci moom même yahud yeeg mushrik yi nga xam ne gëmuñu woon yàlla xam nañ kii mooy kan xam nañ fan la bokk yonent bu mel noonu yàlla yónni ko ci ñun leeral léppam amul dara lu ci lëndëm hatta lim fi bàyyi sax ñim fi bàyyi toppatoo nañ ko ba dara lënd mu ci muy sahabatul kiram ci ay waxam ak jëfam lu tax mooy yonent bu amoon lu lëndëm ci moom diine ji am lu lëndëm am am lu leerul mais looloo tax diine ji dara du ci lëndëm parce que lépp la yàlla leeral loolooy lu njëkk ñaareel ci histoire yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam dinañ fekk inna xayaata rasul sallallahu alayhi wa sallam waadixan waadixatan kulla alwudux fi jamici marahiliha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam lépp a leer ñaata soxna la amoon ñaata doom la amoon ñaata at la dund fan la juddoo fan la faatoo hatta bi mu faatoo ñan ñoo ko sang ñan ñoo ko suul fan lañ ko suul lépp leer fi jamii marahiliha alxayaa depuis ba mu takkee soxna ba ni mu génnee àdduna wala nga ni depuis juddoogul kan mooy baayam kooku kuy baayam ba ni mu ñëwee ci ay way juróom lépp leer amul lu lëndëm sallallahu alayhi wa sallam ñetteel mooy inna sirata rasul tahki siratul insan akramahu llahu birrisala soo jàngee histoire yonente bi nga gis nit koo xam ne ku yàlla tànn moo tax mu ne ana xiyaarun min xiyaar man tànn téef laa bu yàlla tànn yonente bi nee na yàllaa bind nit ñëpp natt seen ruu yi xool ban ruu moo ci gën sama ruu gën ci ruu yi mu daal di tànn teg mu nattuwaat ruu yi mu gis ruu sahaaba yi moo gën mu jël teg moo tax mu ne xayru naas qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum li gën ci génération yi mooy sama génération man Muhammad ñu ci tegu mooy sahaaba yi ma àndaloon sama génération ñu ci tegu mu ne ba àdduna bi jeex noonu la ñuy demee chaque jour génération bu njëkk moo gën génération bi ci topp ñetteel mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam histoire am moo ñuy nettali nit ku baax ku yàlla baaxal ku yàlla tànn teral ko moom yonent ni ko yàlla tànnee yónni ko génnul ci doomu aadama boo xoolee da ngay gis ne doomu aadama la judduwul ci ay ci ay léeboon ak lëppoon li nit ñi xewal léegi di jayaate moom def dañ ko ëmb juróom-ñeenti weer naturel yu doom yi ñuy ëmb nit jur ko ni nit di juddoo cëppeeluñ ko kaw asamaan déedéet mu judd ñu nàmpal ko jàng ngeen ñu ne dañ ko nàmpal ku ko nàmpal mu ngi tudd Halimatu Saadiya ca àll ba kon yonent ak nekkuk yonentam yàlla jaarelu ko ci ay kéemtaan ak ay def-defle yaakaaroon nañ ne dafa lii dafa laa comme li xew Sénégal tey loolu moo tax ñu ñëw di leen gëmloo ne yonent yàlla Muhammad bañ ko suulee ci bàmmeelam ñetti fan la fa def ñëw Sénégal yonent bi du olof du tukulóor du séeréer du joolaa déggu ko arab la yàllaa ko yónni mu nekk arab moo tax yàlla jox ko quranan arabiyan naka la ñu gëmee ne yonent yàlla Muhammad olof la wala tukulóor la wala pël la wala joolaa la te yàlla ne subhanahu wa taala muhammad sallallahu alaihi muhammadan rasulullah muhammadan rasulullah walladina amanu maahu ashiddaau ala alkufar yàlla ne laqad jaakum rasulun aaya yi gën a tedd suñu borom di ko wàcce ci ñun mooy alquran yàlla di du tudd sax turu yonent bi di ko ne yaa muhammad ndax fonk gi mu ko fonk benn yoon da ngay dégg yàlla bi mu ne muhammad da cee teg dara rasulullah yaa nuux am na ci alquran yaa muusa yaa isa waaye yaa muhammad amul ci alquran yaa ayuhan nabi ngay dégg yaa ayuhal muzammil yaa ayuhan nabi lu tax yàlla sax dafa weg moom yonent yàlla muhammad waaye ñun dañu comme dañoo réer comme ñun jànguñu diine comme ñun gëmuñu l'islam ay xuraafaat lañ gëm ay kéemtaan moo tax ñu ne ñu yonent yàlla bi olof la te yi ñu ne suba ñu ne séeréer la bi ko yàlla suulee biñ ko faatoo ñu denc ko ci bàmmeelam Médine ñetti fan la fa def ñëw Sénégal di woote ana téere bi ko yàlla jox bi mu ñëwaatee Sénégal ban téere la ban téere la yàlla wàcc ci moom yonent bu nekk am na téere Ibrahim amoon na lu ñu naan suhuf Moussa amoon na Tawraat Isa amoon na Injil Muhammad amoon na Quran yonentam Sénégal bi ana téereem il faut ñu gëm ne Alquran ak sunna ñooy leeral sunu diine feek tënkuwuñ ci Alquran ak sunna ci réer la ñuy nekk ak kufru bu ñu dee yàlla yóbbu ñu safara képp ku gëm ne yonent yàlla Muhammad dafa ñëw Sénégal di fi waaraate yow gëmoo yàlla gëmoo Alquran lu tax. alquran ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allah wa xaataman nabiyin yàlla nee na muhammad du bàyyu kenn ci yéen moom yonent bi du bàyyu kenn waaye yonent yàlla la bu yàlla tànn yónni ko mu ne moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo mottali yonent yi moo leen mottali cent vingt quatre mille lañ yonent bi moo tëj bunt bi moo tax mu ne xaatam xaatam nabiyin moo tëj bunt yi amul yonent buy ñëw moo tax moom yonent mu taxaw bëccëg mu ne laa nabiya baadi amul yonent buy ñëw sama ginnaaw waaye waxoon na ko mu ne ku dudd gudd fan di nga gis salaasina kazabin kullun yazamu annahu nabi mu ne laa nabiya baadi ku dund sama ginnaaw fanweeri fenkat danañ feeñ ci kaw suuf ku nekk di nga ne yonent laa yàlla mu yónni yonent mu ne laa nabiya baadi laa nabiya baadi wax na ko sax law kuntu law kaana nabiyin baadi la kaana Umar bu doon yonente am Umar ibnul Xataab mi lay nekkaat ndax ni mu meloon ni mu dëggoo woon waaye amul yonente buy ñëwaat kon du yell ci jullit mu bëgg a gëm ne am na yonent bu feeñ ginnaaw yonent yàlla Muhammad boo ko gëmee rek sa pas-pas wérul te ku am pas-pas bu wérul bu dee day layoog yàlla de safara la jëm waaw moo tax pas-pas yi ñu war koo càmbaraat leeral ko jàngalaat ko jullit ñi ba ñu am pas-pas yu leer yonent yàlla Muhammad musta ñëw Afrique waxuma la ak Sénégal musta ñëw Afrique sahaaba yi keroog ba ñu amee jafe-jafe dafa taxaw biir màkk ne leen gàddaay leen ñu ne ko fuñ jëmu ne dem leen Éthiopie am na buur bu dul tooñ bu du nangu kenn tooñ ci mu kaw na moom sahaaba yee dem jaafaru saadiq moo leen jiite waaye yonent bi demul waaye doomam àndoon na ci roqaya wala zeynab yonent yàlla muhammad demul tukki na nag dem na taayif waaye xam ngeen ne taayif la ko fa jële mooy dañ koo dóor ay xeer ba deret sangu ko yonent bi génn na màkka après dem Médine amma golfu arabe bi yonent yàlla muhammad tànkam musu fa tegu ba ñu naan nag ñetti fan la def ci bàmmeelam ñëw ci Sénégal nekki fa ñu rënk ko lu mu fi def kan moo ko fi indi yonent bi xanaa da ngeen a fàtte bi mu faatoo ñu sang ko ay nit ñoo ko jël gas bu mu xóot dugal ci pax mi moom sax suulul boppam kon biñ ko suulee kan moo ko fa génne indi ko fii ci ñun kan la ñooñu ñan ñoo ko fekkee alxuraan aaya boobu yàlla ne mu ngi Sénégal fan lañ ko bind ci saaru kaamil bi téeméeri saar ak fukk ak ñeent ban aaya la yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala naabudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala ittibaihi wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya muthabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam inna silata muhammad wahdaha tu'tina addalil alladi la rayba fih ala sidqi risalati wa nubuwatihi jàng histoire yonent sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo ñuy jox leeraay guy wane ne yonent mission mi yëpp daf ko réussir yonent amoon na cent vingt quatre mille sahaaba mais déggoo kenn naan ko yow yàlla nga genn wàllu yonent yëpp ak wootekat yi da ngay gis ndeysaan seen mission échec xoolal Moussa gars yi jékki-jékki nañ bis ne ko arina allaha jahratan won ñu yàlla face à face sahaaba yi kenn musta dégg ñu ne yonent bi won nu yàlla Isa gars yi dañoo jékki-jékki ne ko yow yaay yàlla amma yonent yàlla Muhammad da ngay dégg yàlla di ko tagg naan ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galida alqalbi lan faddu min hawlik dëgg-dëgg yow muhammad alayhi salatu wasalaam ci yërmande gu la yàlla laxas ëmb la ci ndax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla daf ko yónni mu nekk yërmande pour xeet wi dafa ñëw fekk ñëpp dem saf ñëpp jëm safara wa kuntum ala shafa hufratin min annaar fa anqazakum minha yonent bi dafa ñëw fekk ñëpp takkaayu jël seen bagage jëm safara yonent bi ñëw jël kaalaam takk ci ndiggam ne du fii yoon bi du fii loolu moo tax mu ne moom yonent xeet wi ñëpp danañ dugg aljanna ba mu des ku bañ sahaaba yi ne ko ndax nit dina bañ a dugg aljanna mu ne waaw waaw ñu ne ko lool lu muy mën a nekkee mu ne man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba ku ma topp dugg aljana ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg aljanna kon na leer ci suñu bopp muhammad ab arabe la du sénégalais ku weex la du ku ñuul ku yàlla yónni la mu faatu mu dund ni nit ñu dundoo mu juddoo ni nit ñu juddoo wulida kama wulida al bashar wa aasha kama aasha al bashar wa maata kama maata al bashar même faatoom sax du ay kéemtaan yonent bi ruwaam musta bougé te jëmm ji demut yooyu nit ñi gëm fi ay caaxaan ruwaam bi fi la nekkoon fanweeri at ak yaram bi génn fekk fee yooyu amul ci lislaam caaxaan la yonent bi ba muy rañaan sax yàlla waxul subhaana allazi asra bi ruhihi lan la wax subhaana allazi asra bi abdihi sell ñel na yàlla mi nga xam ne moo rañaanal ab jaamam kon baat boobu yàlla utilisé moo lay wan na jëmm ji moo dem du ruu bi ci rañaan sax laa wax keroog ba muy nekk ci xuntuma jibril di wàcc fekku fa ruu bi jëmm ja la fa nekk ndax jégg ngeen ne da koo ñett ne ko jàngal mu ne ko mu ne ma jàng mu ñett ko ba mu yuuxu ma ana bi qaari mu ne ma jàng mu ne ko iqra mu ne ko lan laay jàng mu ne ko iqra bismillah kon du ruu bi yont yàlla muhammad lépp naturel la ni nit mel amul ay jaar fii dugg fi déedéet ñun ñoo gëm yooyu ñun ñun ñoo gëm ay sàmbaak ay fii dugg fee déedéet ñun ñoo ko gëm waaye loolu ci lislaam amul relation subhanahu wa taala yàlla bu waree def kéemtaan daf koy def direct mu jeex mais ci yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam pour yàlla daf ñuy won ne kii maa ko yónni bi muy rañaan ruubi ak yaram beeneem ca xaaru xiraa ruubi ak yaram bi la fa jibril fekk bi mu faatoo ruubi ak yaram bi la bañ koy sang ruubi ak yaram bi la bañ koy suul ruubi ak yaram bi la bu doon loolu la mu sang boppam suul boppam waaye faatu na ay fan ñuy ñuy xalaat naka lañ koy sangee ndax dañuy koy futti kii mooy ku tedd ki keroog bañ ne faatu na ñëpp jaaxle Aboubacar moo génn këram dégg yuuxu yi mu ñëw dugg néegu Aïcha mu fekk ñu ngi ko sàng mbàjj mu ngi tëdd ci kaw lal bi mu muri kanam gi leer gi jolli mu fon ko ci jëbi ne ko tibta hayyan wa mayitan ya rasulallah amul ay kéemtaan mu muuraat ko lan la ñuy fexe mooy nuñ ko sangee nuñ ko suulee bañ ko suulee ba pare Fatima dafa jàkkaarloog Bilal ne ko yow Bilal yow Bilal yaa Bilal kayfa tiibat nafsak aw anfusakum anta xussu ala jasadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi turab naka ngeen mën a jàppee yonent bi gas ba mu xóot di ko ci suul yow Bilal yow yow leen yi seen xel lu mu leen may ngeen jël yonent bi di ko suul lan la ko bilaal tont ya fatima innahu amrun min awamirillah law arada abuk an najalahu ala firas bayna alsamai wal ardi laqumna bihi lakin minha xalaqnakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan uxra sa baay bu bëggoon ñu teg ko ci piliyaanu or diggante asamaan ak suuf wallahi ñu def ko ñun sahaaba yi su yonent bi bëggoon bi mu faatoo ñu teg piliyaanu or ba mu kawee ñu teg ko ci kaw mu nekk ci kaw du laal suuf kon ñun ñu def ko waaye nag lii nga gis ñu def ko loolu mooy mbiru yàlla yàllaa na ci suuf laa leen tibb laa leen binde su ngeen faatoo ñu dugal leen ci suuf bu ngeen di dekki ma génne leen ci biir suuf kon yonent yàlla muhammad ab arab la woon du sénégalais ku weex la woon du ku ñuul yonent la bu yàlla yónni jox ko téere bu tudd alquran keneen ku yàlla yónni fii na nga indi téere bi fan la la yónnee ban jib ban malaaka moo doon wàcc ci yow fan lañ la yónnee ban téere nga yor kan moo la yónni waxal yàlla bi mu yónnee Moussa dane maa ko yónni bi mu yónnee Issa dane maa ko yónni yëpp ci téere alquran bi la nekk keneen ku mu yónni Sénégal nag nañ wax ci ban téere la nekk yal nañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu sorik allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tuazibna ba'da al mawt bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة